merci mbokk yi tey ñu ngi fii si seen émission sunu sport tey nag euh, ñu ñëw si open dixième édition open karaté bu Diourbel ñu ànd nag ñi nga xamante ne parmi les invités di Ibrahima Mbacké Tine Ibrahima Mbacké Tine nag mi ngi nii euh, toog euh, dend ak ñun tey nag ñu ànd ak moom tey mu bokk si ñi nga xamante ne ay parrain lan mu depuis ba nga xamante ne édition yi ñu ngi am ba léegi mu ànd ak ñoom kon nag duñ def rek moom lu dul di di koy gërëm di koy sant ndaxte sport Diourbel ni mu ko gisee dinañ ko si laaj li nga xam mooy xalaatam nan nga gisee li nga xam moom mooy sport suuxti li nga xam mooy karaté bi. waaw sportu jurubeel dama ci kontaan ndax man dama ci am mbégte ci sportu jurubeel parce que sport Diourbel dafa war a jëm kanam mais vraiment ñu mel ni yéen dañuy jëmale sport bi kanam moo tax man sport bi moo ma ñor moo tax lépp lu xew ci sport bi rek dinaa ñëw pour jàpp ci pour sport bi jëm ci kanam pour Diourbel jëm ci kanam. Euh, ñu ngi nii actuellement si li nga xamante ne moom mooy euh, final bi di finalu open bi euh, dixième édition ñu koy gërëm di koy sant Ibrahima Mbacké Diène ñu ngi lay merci kooku moo nekkoon Ibrahima Mbacké Tine ñu ngi koy gërëm di koy sant bu baax a baax jërë ngeen jëf